Ama Baldé bu yàggee dafay soof Sénégalais yi xam nga làmmiñ bu waxul dëgg wax leneen nag xaadim euh, combat bi a trop duré Covid jaar na fi blessure yi jaar na fi combat bi kenn mënu ko comprendre xaadim yoonu tribunal juddu na fi ba tey ñu xeet ne dañu convoqué waat le vingt-quatre mo taxone biñu wax dama ne li won cette affaire là est loin d'être terminée Khadim le problème mu Luc Nicolaï bii ak pap cham bobu xam nga est loin d'être terminée c'est que nak soko ko waxee dañuy defe ni xëy dafa am koy waxal da wax ñoo kenn ñu ñëpp ay Sénégal lé fi lañ dëkk ci réew mi mbir mu am ay appel ak bu ñëk ba tribunal lik la jox dëgg le procureur interjecte appel L'appel, appel boobu le procès aura lieu le 24 Vous faites que le procès a eu lieu le 24 Ben verdict am ci lan y am. impacté si. dafay impacté sax ci bés bi donc ngir les Sénégalais yi dans le combat nous ne am pas lu combat wala ñu bàyyi ñaari mbër yi ñu dem wuti yeneen contrat. non non non bu fekkee mënul nekk Xaadim Ama Baldé a trop souffert ci avance bi dañuy wax dëgg Modou Lo a trop attendu ci avance bi Modou Lo Ama Baldé kese du adversaire am Ama Baldé Modou kese du kese du adversaire am mhm. Sénégalais yi bëgg nañu seetaan combat bi. bu contrat bi mënul sotti nañu xool nu ñu quitté avec le promoteur dem seen yoon wala keneen ñëw organiser ko mu jeex ñu bëre ko mais le combat a trop duré mbër yi dem nañ ba jeexal dëgg la yàlla bëgg muy côté Modou Lo muy côté Ama Baldé nit ñi wax nañ cee wax a wax a wax a wax ba amatuñu lu ñu wax mooy moo xam chroniqueur nga supporters yi supporter nañu takk nañu ay banderole dem nañu wuy ji defal nañu ay t-shirt dara donc lig fi ñu ko laal bu mu fa tëdd ñi gëm ni ko combat bi du am na leen gàcceel man buur maa ko wax ñi taxaw naan combat bi du am le cinq Cheikh Fallou Luc Nicolaï dama koy ñaan ngir yàlla mu fen loolu leen wala mu gàcceel leen mooy combat bi dafa war a am Modou lu ak Ama dañu war a runkum dañu war a daje digg bi yàgg na coow li bari na seen signature bii samedi dafa war a am force ndax ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk ay nit ñoo leen topp ay xaj wala ay muus wala ay golo topp ñu leen ay nit ñaa leen di topp dëkk bi dafa am ñoo xamante ni que dañ leen di fay former leen pour ñu maintenir la stabilité et la sécurité euh, maanaam des personnes et de leurs biens du ñaari mbër yooyu war ñu mën a taxaw ni seen mbir mënut a nekk déedéet loolu c'est un défi sax pour la police et pour la gendarmerie le pourquoi. dañu war a signer ci ci ci discipline seeni supporters ñëw ci discipline bu ñu paree ñibbi ci discipline bu ñu ko mënul force restera à la loi parce que dañu nekk ci dëkku yoon man su ma gisee ñu naan ñaari mbëri seen mbir munul yàgg wala amuñ fu ñu ko defee damay j'ai le cœur meurtri par amul wax dafay mel ni que ñoo mbëri yooyu ak seen supporters dañoo nekk ci kaw yoon te war ñu nekk ci kaw yoon. waaw wala dañoo faible seen kanam wala kenn mënul leen dara non ñoom ñaar dañu war a ñëw jàkkaarloo cosaan seen i supporter ñëw supporter seeni mbër show ñaari mbër yi jàkkaarloo waxante lañuy waxante suñu paree ñëpp lem ba mu ron ku nekk ñibbi fa nga war a ñibbi signature de contrat du fu du fu ay nit war a ñëw di perturber wala di indaale ay jaasi ak i paaka wala di sànnante ay xeer wala di bousculatante déedéet dañu war a ñëw se tenir à carreau buñ ko deful force restera à la loi la police est la la gendarmerie est là ku fa déconné mbaa nga dëngal fa ñu teg la ci yoon ma loolu laa gëm ci un état de droit mooy que moomunu nit ñi na ñëw signé ko samedi bu fekkee dañu combat bi dina am na ñëw na ñëw signé ko samedi te commencé jaay la pay-per-view commencé dawal les teasers supporters yi mën a jël seeni t-shirt

parce que bugguma buur nangam selon l'article bi nga xamanteni que mom la Dakar Actu bind mom la lire ci sama téléphone donc problème mu droit la woon ak problème mu pay-per-view c'était pour le combat Modou amabalé donc deuk bi amna na yoon moy mooy du man may atte du Luc moy atte du Pape moy mooy ki am deug yoon dina la jox deug ñu avancé nekk ci mais bu sañon bu mu impacter combat bi tout loolu parce que seen buur combat bi war ñu ñi nga ay autorité lañu wala ñu ñu ñi nga xamante ñoom lañ dénk làmb ñu jóg intervenir ci euh, même bu au delà de pers au delà de la personne de Luc Nicolas mais ñu xol ci Modou ak Amabal mi xam tok nañ presque 5 ans dugg seen 6 ans wuñu ak tamit sauver tamit avec u làmb parce que combat yu bëri mi ñu war am après ci combat bi la dépendre xam nga xaare mës ko wax fi depuis le début dama leen ni woon ce problème là entre Pape Thiam ak Luc Nicolas nañ ko régler mm. suñ ko mëna régler mm. nañ ko régler xol nu mu gën a jekkee ñaar ay sénégalais la ñu ci réew mi la ñu dëkk ku ci nekk ba ngay séqanteeg sa borom défar mo la taxono a su fekkee ni que ils peuvent discuter nañu discuter wut un issue favorable pour les deux camps Luc continue, yonam Pape Thiam continuer il avait des ambitions pour la lutte des ambitions claires et limpides jóge bitim réew pour bëgg développer l'âme. man dama ko naan ambition yooyu bu mu ci yàq dara bu mu ci puus dara doomi dëkk bi la Luc Nicolaï doomi dëkk bi la amaana mën nañu dajawaat ci yeneen i mbir yoo xam ne mën nañu seqat leneen lu dul làmb Pape su fekkee am na opportunité liggéey ci yeneen combat na ñëw liggéey ci comme ma sàmba comme ma Demba combat yi taxaw ren bëri na bese ngi fi moom mu ngi fi kenn kenn gi loolu lépp dafay yokk rek te ku yokkul dangaa wàññi mais bugguma làmb ji seen problème bii wara ñu war leen taxawal ati le 24 indi benn impact ci combat bi su ko indee dafay compliqué waat mooy dañu redémarrer waat à zéro te man bu boobaa bu ñu naree redémarrer waat à zéro nañu bàyyi ñaari mbër yu ñu dem seeti leen muy oh, bu ko beneen promoteur mën a tëgg mu tëgg ko te boobaay dina jëlaat un an ou plus donc nit ñi bëgg nañu combat bi jeex demee boor Pape bëgg naa nelaw mënta nelaw Awa Ama bëgg naa nelaw mënta nelaw Grand Tafa Naar bëgg naa nelaw mënta nelaw Malaw Lawbe bëgg naa nelaw munta nelaw boo demee fee Papis xarañ loo bëgg na nelaw mënta nelaw Demba bu xarañ loo ca Gàmbi bëgg naa nelaw mënta nelaw Serigne Ndiaye yaaram bëgg nañoo nelaw mënuñoo nelaw de combat bi pression bi mu àndal dafa bëri mom Jules Baldé combat bi pression bi am Pikine mom la am bir parcelle te non la am ci combat modlo pression bi dafa wax donc ci il a intérêt que combat bi am le cinq de combat bi ciowul ko médical waru am dara war ci am combat bi daf war a am bu benn mbër layee médical bu kenn layee coowul yoon dañu war a bëri combat bi mu jeex man nag bu ma sa sañoon Luc Rousselo ñi naan du am ndax am na ñu taxaw ne du am dëgg la yàlla bëgg de te dafa am force. macha allah am nañ ci yaakaar te yaakaar naa amateur yëpp yëpp ñu ngi ak waa ahlu làmb ñu ngi naan pour combat bi mu am amaa dem seet leen Modou Lo dem seet leen bu fi ñu jeexalee waxtaan bi tey Ada Fass Gouye Gui dafa taxaw. Euh, ñu doon wax naan guy gi doomu daan guy gi ak euh, ki nga xam ne mooy. Euh, Quench guy gi xëy dañ jël Ada am na ñu ne loolu dina découragé loolu tey mbëri mbëri bëri mën nañu découragé ci loolu est-ce que lam moo moo moo changé léegi wala boog mbëri ñooy xool maanaam fi mu leen gën a fi mu leen a arrangé ñu def loolu. xam nga boo waxee France à Thiès ci bëri dañu mer lam foofu la jëm buur des fois day def des annonces incompris Ada Fass lu mu liggéey lu ko mën a boole sax. lu mu liggéey la ko mën a boole guy gi mais làmb mooy demee noonu Ada Fass mbërum réew la attention Ada <laughs> dem na ba tool ci làmb foo am nekkatul n'importe qui te des na tuuti laa wax kenn dootu ko bañ tey bu duggoon ci guy gi tey am fandam kenn dootu ko bañ aw yoonam dafay gaaw donc valeur marchande bi Ada am moo cher. Ah, dafa bari mbooloo. dafa saf xorom supporter la dafa saf xorom dafa bëri bayre dafa mën a bëri nag ak lu mën a am malgré luq ñuur la euh, petit petit petit petit petit kàccoor la waaye nag mbërum ndakaaru la nag dañuy wax ci dëgg de mbërum ndakaaru la li mu jëlee ni ci ful am na mbër yu mag yoo xam ne mënuñu ko am li mu yëngal ci bés biir ndakaaru am na mbër yu mag yoo xam ne mënuñu ko yëngal loolu mooy dëgg donc làmbu foofu la toll promoteur yi teguñu ci xaar teguñu xaalis ci làmb ji pour carrière mbër yi de déedéet. Ah, dañu teg seen xaalis boo tegee cent franc mën a am deux cent. waaw parce que ay bailleur la ñu ñoom El Hadj Bassirou ñoo daan tëgg làmb ci par amour ñoom ndam si yàlla si góor gi Amet Diène ñoo ko daan tëgg par amour ñoom góor gi ndaw ci HLM Baye Chérif Ndaw ñoo ñoo daan tëgg làmb amul amour ñu fi nekk nag ay businessman lañu nag dañu wan dëgg nag même bu fekkee ay acteur làmb lañu bëgg nañu làmb mais xaadim amul menn po booy teg 60 millions naan guy gi daa waroon daje kew a kee tey combat Ada Fass ni mu mën a mel ak li mu mën a jox làmb ak li mu mën a indi ci xaalis ak li mu mën a drain ci fur ak coow li mu mën a indi guy gi doomu daangu mënu ko